day bisum ndimbal di bisu faj ajo damaa bëgg ñu bàyyi bis ba kon andi ko ci bis bi moo waral ñuy fàttali bis bi nga xam ni ci la ganee àddina muy bis bu rëy bokk na ci màggal yi gën a rëy ginnaaw màggalu Touba ñetti màggal yi gën a rëy ginnaaw màggalu Touba màggalu Mbàkke Kajoor gi bokk na ci moo tax Cheikh Moustapha di ko def ci ndigalul sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moom lépp ndax lépp lu waay di def ci yoon wi moom nga koy defal moo koy jiite mooy kilifa gi waaye ci teewaayu kilifa kër gi di Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mooy xalifa bu Cheikh Moustapha waaye mooy xalifa bu Cheikh Mouhamadou Bara itam ak njabootu si Cheikh Moustapha gépp mu fonk ko loolu tax mu boole ma ñun comité d'organisation yi nga gis sa wet madame le nga xam ne ñu ngi ci ràññee kii sës ci sama wet di sëriñ Bara Abdul Karim di xalifa suñu Abdul Karim mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak sëriñ Bara Abdul Ahad moom itam nga xam ni commission bi yor wàllu set setal gi moo ko yore ak sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Aziz nga xam ni depuis ñoo bokk ànd liggéey bi mooy premier adjoint au maire bu Touba ak sëriñ Khadim Mbacke di xalifa suñu Moustapha Bara moom itam muy kenn ci njaboot gi ak Serigne Modou Mbacke mi nga xam ni Serigne Cheikh Kajoor moo ko yebal moo ànd ak sëñ abi bu Mbacke doomam nga xam sëñ Cheikh Kajoor mooy imaamu Mbacke Kajoor Serigne Soxna Ami Mbacke doomu sëñ Modou Aysa mooy mi ngi fi Serigne Abdoul Ahad Abdoul Aziz nga xam ni mooy chef de village Mbacke Kajoor ñu ànd ak suñu maire de la commune sëñ Mamour Sylla mu ànd ak conseil yëpp ñoom si Ibrahima Ndiaye ak secrétaire général bi mu di monsieur sàmb ñëw nañu ànd itam ak sëñ Alaaji Masila Ndiaye sëñ Mame Thierno Dieng nga xam ne moo fi représenté président conseil départemental bi ñu ñëw nag fekk fi Alaaji Madiaye Fall mi nga xam ni fédération Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp moo ko yore nga xam ni saa suñ jógee fii këram la ñuy jaar yenn fa bokk fa toog waxtaan soo a ñibbi mu ànd ak fédération bi yëpp ñëw teew fi ak sëñ Abdou Aziz Diop moom bi nga xam ni moo wutu sëñ Dame Diop bi yoroon kàddu sëriñ bi ci Touba Ndiobène Kounta sëriñ Saliou Tine nga xam ni monsieur Tine mooy secrétaire général bu comité d'organisation bi mooy secrétaire général bu comité d'organisation bi moom itam mi ngi suñu wet saa su nekk ak euh, Moussa Mbeng Alaaji Jaaja moom xëy na yaa ngi wax waaye kon da am ñaari bor yoo xam ni yaakaar naa bii moo gën a dëgër gën a saf mooy dafa ànd na suñuy waajur ba ñu nekk ay xale nii la daan ànd ak ñoom ci màggal ñu nekk ay xale yu ndaw yoo gis ci ñu kan kanam waajur ba ba ñooñu génn àddina mu ànd ak ñun ci liggéey boobu ba léegi moom itam ñu koy sargal di ñaan si borom yàggal ko fi sëriñ Cheikh Fall Gueye moom itam mu ñëw teewal fi sëriñ Adama Gueye maamam moo njëkk a ci sëriñ bi ak ñi xam ni ànd nañu ñëpp ku ma ñu tudd ak ku ñu tuddul nga xam ni yaa ngi ci suñu xel euh, ak presse bi nga xam ne dañoo ànd ak ñun Touba ak ñi ñu fekk Louga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di sant bu baax ma la gouverneur waaye may jiital ay sant ak i ngërëmu ci gouverneur sortant bi fi jógee muy Alaaji Buya Amar ndax dañ daan ànd ñun ci liggéey bi àndin wu rafet woo xam ni Pastef la ci daan ànd ak ñun ba yàlla dogal mu bàyyi ko fi dem dem Kaffrine kon ñu ngi koy sargal te di la ñaanal yow itam ndam lu fi ab ma sa am nga am ndam lu ko gën a kawe bi barakat rasulullah alayhi salaatu wasalaam ñu sant préfet gërëm ko ak su préfet ak chef de service yëpp am na ci ñoo xam suñuy xarit lañu ndax dañoo yàgg daje ak ñoom Cheikh Amadou Bamba ñu lay sant duwaan di la gërëm ci taxawaay bi ak pasteur bi nga jël euh, di wax euh, ay cant ki gërëm di ko yóbbante ci kilifa yi balaa loolu alaaji ma jeey dañu daan jox kàddu fii yàgg sëñ Abdou Aziz boo leen gisee ñu gàttal ko dafa am kenn ci njaboot gi ci ñun koo xam ne dafa wàcc liggéey bi te dañ faa war a dem julli jiite ji ko sëñ Bara ñoo moo ko war a jiit ñun lañ ñun rek lañ ciy déggandiku moo waral seeni kàddu yi ñu bëgg koo dugal rek ci suñuy suñuy kàddu waaye kenn ku ne xam nañ ni am ngeen fi ay kàddu waaye loolu rek moo ñu xaw a tënk kon ngeen jéggal ñu ko ñuy sant bu baax ci taxawaay bi madame le gouverneur parce que Serigne Moustapha mi nga xam ne moo woote bi muy yow muy préfet su préfet ak chef de service yëpp xam nañu ni kenn ku nekk li nga feeñal ci yéene dafa mel ni sëriñ bi sax yaa ko ëpp yéene ngir jàng kon ñu sant sant seen kilifa di ko jaare ci ministre de l'intérieur mu dem ba ci premier ministre ndax saa su bis bi ñëwee dañ dañ ciy ànd ak ñun li ñu bëgg yëpp ñu ciy jàppale di sant président Macky mi nga xam ne lu ci waaye def la nga ko defee ci moom moo la ko dooleel nga mën koo def te diiraa mu nekk président depuis 2012 dafa ànd nag ñun ci liggéey bi ci wetu sëriñ bi daan jàppale si di Makhtar bi mu nekkee xalifa général des Mourides ci liggéey bu sëriñ Touba bi doon ko jàppale ci dëkku Touba bi di ñu jàppale ci màggalu Mbàkke Kajoor ak bisum ak jëmmi dëkku Mbàkke Kajoor ñun man bi nga xam ne maa doxoon ci diggante bi daan bindanteeg moom daan waxanteeg moom téléphone di wax xam naa li mu jàppale sëriñ bi ak li muy defal kon ñi koy sant ci loolu di ko ñaan yàlla suñu borom defal ko ëllëgam gën a neex ci tey bi ba rajo Rasulullah alayhi wasallam yàlla dafa ko sutura ñu sant bu baax gërëm leen ci nga xam ci taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ci léegi euh, wax ji daanaka amul lu ma ci mën a yokk lu dul euh, wax ni euh, monsieur le commandant de la bi monsieur Sall li nga wax dégg nañ ko bu baax yàlla dogal na sëriñ yi yàlla def leen a nattu nattu sëriñ mooy ku gedd àddina dëgmal sa borom te bañ caa yóbbale am mbooloo mbooloo moomu kenn mun leen a ci seen borom te yaroo leen sëriñ si ay éducateur la ay yarkat lañu yarkat nag jàpp naa ni du ma sa ànd ci koo xam ni day def naka sudul noonu ñun dañu daan wax fi saa suñ ñëwee ba wax suñuy doléance ba pare dañuy wax ak taalibe yi ñiy ñëw Mbàkke Kajoor ak ñi dem feneen dañ dañu naan nañ respecté ñi nga xam ne ñooy takk der yi taxaw ci yoon wi ndax fu ci takk ab takk der taxaw na xam ne yow man yow may jaar yaa tax mu taxaw fa di wax ni si sar si yeeg xeet yu mel noonu ak ñi nga xam ne ay dëru yu ndaw lañ daawuñu nangu dañ daan wax naan nañ mas buñ maslaa ci loolu buñ leen bàyyi ñu ñëw Mbàkke Kajoor kon jàpp naa ne sëriñ si moom seen rôle mooy guider nit ñi ak teg leen ci yoon boo xam ni kenn bu jalgati liñ bëgg suñu amoon gendarmerie du am police du am kasa du am ginnaaw lu yàlla amul ak yoonte amu ko suñ suñ Tuubaa amu ko ñun mënuñu ñu am waaye lii suñu lool ñu ngi ci taxaw guddi ak bëccëg mooy wax nit ñi li ñu war a def ñu sàmmoon teg li nga xam ni moo di yoon kon na nga dalal sa xel bu baax xam ni li ñu war a wax yëpp incha allah ci diggante ñii ñëw ak ñii dem danañ ko wax li ñuy wax rek mooy eh, koo xam ni dangaa am accès li ñuy wax accès de vitesse nga def ci charge wala nga yab loo xam ne waroo koo yab kooku ñun waxuñu ci moom kooku lu ci yoon wax nañ ci masla loolu lañ mas di wax dëgg kenn du ci mas masla waaye li ñuy wax mooy dañuy gis euh, bis bi nga xam ne ci la ñuy bale si Touba te ci la ñuy bale si Mbàkke Kajoor ay yooyu ñoo ñëw di ay nit te dañ leen di wax nit yi bu kenn yëg ci kaw na ñëpp dugg ci suuf na ñëpp dugg ci biir ngir bañ a gaañu ñooñu la ñuy wax ñu yombal leen seenu ñëw pour ñu mën a indi nit ñi nga xam dañuy bale ndax daaw dañ fi toog ba deux heures am oto yoo xam ne accès bu ñu te gendarme leen jiite ñoo leen téye am na ñoo xam ne ñi ngi leen téye Touba ñi wax ne waa Touba beneen lañ am na ñoo xam ne daal mos ñoo leen téye suñuy ñaan ay ndimbal foofu lañ koy jëme waaye di ci koo xam ni da def loo xam ni waroo koo def service d'hygiène euh, capitaine ñu dala sa xel daaw liggéey nañ liggéey bu rafet boo xam ni seen côté dara mun si manqué ni ñu defoon daaw am na benn lettre boo xam ne dañ ko bindal préfet mu andi ko ci ñun ñoo ànd ci liggéey bi yaakaar naa ku fa ñëw dees na la dalal des na la jox nga ndékki des na la jox nga añ des na la jox nga te incha allah su ngeen fa indiwoon cent personnes dina leen jëpp en kooku moom bu lañ ci am benn benn benn benn jaaxle ci wàllu euh, docteur euh, wàllu médicament yi ñu ngi sant bu baax euh, li ma ciy wax monsieur madame le gouverneur Mbacké Kajoor président moo mayoon sëriñ bi def ko ab centre de santé nu ñu ko mën a tuddee secondaire ak nangam-nangam yëpp sante de santé la boo xam ne président moo ko mayoon sëriñ bi mu aju ci région médicale wala direction médicale bu bu région de Louga donc li ñuy wax mooy fan yële dañ daan am jafe-jafe ci wàllu médicament suñu waree jënd médicament dañ jënd naan dañuy ñëw fii ci pharmacie régionale ñu leen ñu leen jaay da ngeen dem ci daal mos foofu ngeen di jëndee loolu moom c'est pas loo xam ne xel mën na ko na keneen pré su préfet jot naa ko jot naa ko jot naa su préfet ak moom ci sëñ Moussa sax moom moo ko interpellé ma ci loolu moo mu waxtaan ci ba nga xam ne dañ wax nañ mu ñëw di jënd si médicament dañoo bëgg loolu centre de santé yëpp ni ñu ñëw jël fii ci Louga di jënd ay médicaments ñu yombalal centre de bi nekk Mbacke Kadior mu ñëw fii di jënd ay médicaments ni ko centre de santé yëpp ay def loolu daal bëgg nañ ko madame le gouverneur ñu yombal ko ndax jafe ci ci ñun. ñaareel ba ci biir set setal bi am na benn fondation bu ñuy wax Bouchara dafa bëgg a dafa bëgg a def benn consultation gratuite médicale ci bis boobu ñu la ci woo soo leen mënee ñëw jàppalee tuuti ci ay médicament it du wàññi dara nga defal leen ko loolu la amoon ci loo xam ni ñu ngi koy wax ci lu jëm ci. Eh, ci ci yooyu waaye suñu tënkee madame le gouverneur gis naa ni gis naa fi ay chef de service yoo xam ni mësuma leen a gis fii ci CRD bi te loolu sa taxawaay la ak sa xirte ak sa paste kon nag yéen chef de service yi dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd jàppale madame le gouverneur ba màggal gi benn benn fay bañ cee am dara bañ cee ñu am ko à 200 pour cent waxuma 100 pour cent mais ñu am ko à 200 pour cent waaw wax dëgg yàlla dama gisee ni suñu xel ci yéen xam na ñi li ngeen engagé yéen ñëpp di ngeen ko def surtout AG route ñu sant bu baax di waxtaan ak yow xam naa at yi weesu yëpp dañ la doon noppal rek ndax lu bari di ngeen ko defal ba noppi ci biir dëkk bi waaye amaat nañ fa ay soxla yoo xam ni tey si imam suñ Bara Karim am na benn mu jëm këram boo xam dafa bëri trop suuf da yaakaar naa mi ci loolu bëgg nañ nga nga nga nga ngeen jàpp ci ni ko madame le gouverneur waxee nga xam ne balaa màggal gi ñëw da ngay ñëw def si sa liggéey ak wàllu contournement bi dem su ngeen ko mën a def ñu commencé ko fàkk ba nga xam ne oto yi dinañ mën a euh, dem ci jàmm ak salaam kon daal màggal gi mi ngi noonu incha allahu euh, madame le gouverneur bi su faj aajo la euh, màggal la boo xam ne ku ci ñëw soxla boo am ci àddina boo ko ci fase suñ borom na ko saafaraal na mu faje woon aajo ñu ànd na sëñ Tuubaa bi nga xamante ni sëriñ bi feeñ na feeñ na ci jamono kon loolu mooy bis bi di ci sant presse bi ci ànd gi ngeen ànd ak ñoom mu ñu jógee Touba mu ñu jógee Dakar mu ñu yekk Louga yéen ñëpp gis nañu ànd gi ngeen ànd ak ci liggéey bi ndax liggéey bi lu mu rafet rafet te saaroowul kenn mënu koo gis kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di sant jërëjëf jërëjëf